mooy jëwriñu liggéey bi ñu koy ñaanal baax sama borom yàlla gën ko may kattan gum liggéeyal Serigne Touba ci xaside yi suñ xaarim ginnaaw boo nuyoo bokki taalibe yi yéen kàddu ngay dénk ñi nga xam ñi ngi lay bàyyi xel ci àdduna warngal këpp fu mu toll nii ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ak ni ko jànkat yi taxaw ànd ko yow bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ngi sant yàlla bu baax di julli ci sant sëñ Touba waaye di ñaanal seex Mouhamadinil Muntaqa ayyadahullahu wa nasruhu suñ borom yagal ko fi lool te wélal ko ba yéeneem ci sëñ Touba yàlla na ko yeggale ko bëggee noo ngi santale yàlla bu baax sëñ Touba di santale bu yàlla bu baax seex Mouhamadinil Muntaqa ci taxawaay bu bu am solo bii nga xam moom la defal te defal ko mbooleem jullit yëpp waaye defal ko rawatina ku yaakaar sëñ Touba ku nekk xam na ne diggante daaw ak ren bis yi mu jagleel alxuraan ak xasida uh, ruu dundaat na ci murid yi dundaat nañ ci ñooñ xasida dundaat nañ ci ñooñ alxuraan dundaat nañ ci waaye it yàlla yi dundaat na ci ndax daaw ku ne xam na ni xasida yi amoon na bisu boppam alquran amon bisub bopam sikrullah amon bisub bopam ren jii mu ndo yépp né nañ ndo yépp jang alquran jang xasida yi tuddu yalla nañ ndo lépp ci benn bis bi te ku ne xam na ni daw contexte bi mu ko défé won lu jafé won la waye gannaaw ba lola jallé lam lam doon fagu ci diggam ak boromam lepp nanguna Ah, Lola nak nag bu yeesalaat ko ren lolo ñëpp tàbbi ci loolu ku ci yàlla dogal nga tàbbi ci war ngaa sant bu baax a baax a baax war ngaa gërëm bu baax waaye nun ñi nga xam ne noo féete fii noo ngi koy beral suñu cantuk bopp moom Cheikh Mouhamadul muntaka di ko jaare ci sëñ am sëtu Mbàkke mii nga xam ne la jox ndigal li mu jotali nu ko barab bii ñu toog itam ci ndigalu sëñ am sëtu lañ fi toogee ngir dundal bis bii démb ñëw na fi moom sañ am sëtu ànd ak jëwriñ sëñ Youssou Diop ak waa Hizbut Tarqiyyah yëpp ñu fii ma toog fi la sëñ bi toogoon jot jottali fi kàddu yu rafet ñaanal lu gërëm mbooloo mépp waaye fii ma toog man itam sëñ Fallou njaay mi sama ginnaaw ne ci kaw tribune bi moom laa fi toogal ak jëwriñam yi sëñ Ndongo Thiam mi sëriñ Modou Dieye Sène sëñ Ablaye Seck bu baax nii ñoom laa toogal ci jataay bi ndax man seen seen ndaw rek laa ñu leen di liggéeyal fii ñu àndandoo ñun waa ahlu xasida yi nekk fii ci Touba jiit jiitu leen ci barab bi waajalal leen barab bi ba ñu mën a ñëw ñu ànd bis bi dundal ko man nag maa ngi sant ñëpp waaye rawatina waa Touba yi nga xam ne amuñu guddi amuñu bëccëg waxtu wu ma leen woowee ñu bàyyi luñ jàpp ñëw nekk ci liggéey bi ba mu jeex démb yaakaar naa bi sëñ am satu ñëw laa fi doog a ñëw liñ fi war a def lépp fekk naa ñu def ko luñ fi war a dox fekk naa ñu dox ko gis nga leen ci suba ba tey kenn toogul te man fii ma toog jóguma fi kon loola seenu nangu la ak seenu njàmbaar ak bëgg liggéey bi loolu moo tax liggéey bépp ñu yor ko man damay toog ñii rek di saytu liggéey bi ak di ko xool kon maa ngi sant bu baax a baax lii nag ku amul feex du ci tàbbi kon ku ci tàbbi rek na nga na nga xam ne am nga feex noo ngi santaale nag mboolem ñi nga xam ne andi nañ fi ay teraanga ndax ca suba ba tey saa boo ma séenee ma jóg génn rek ay teraanga yuñ fi indi laay dem xooli ko ku nekk di di togg di indi ñii di yàq di indi ñii di indi ay naan ku nekk di indi lam am ngir bokkee ko ci bis bi kon ñoom ñëpp seenu cant maa ko amee maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm ku ci ne la nga ca jëf xam nga ko yàlla xam na ko sëñ bi xam na ko yàlla na sëñ bi fayee lu kawee sa njoot sant nañ leen bu baax yéen itam ci liggéey bi taxawaay bii ngeen ci am ak tasaare gii ngeen ko tasaare ba ñëpp mën cee jot da leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla sun borom yokk leen bu baax a baax a baax jërëjëf euh, sëriñ Khadim Guèye eh, xam naa sëñ Dongo sëriñ yi mu yëkkati noonu rek du ñàkk nga am kàddu yi ci tegaat euh, ndax dafa mel ne jamono yi nga yëkkati dafa fekkoon euh, ñu may xamal dañu amoon te problème mu technique donte kaddu yi xaadim yi jàll na en direct yi àddina ñu ngi koy seetaan di ko teewlu te kaddu yi am na solo te li nga doon yëkkati léegi dafa am solo lool ñu bëgg rek nga yëkkati kaddu lu mu néew néew barkeeloo ko teg ko ci kaddu yi suñu xaadim ginnaaw yooyu jëriñoo waaw di sant bu baax a baax a baax daanaka li suñ li suñ xaadim wax rek mooy li nu wax suñu wax kay fi muy jëm mooy rek mooy soññu xale yi bu baax a baax ci am njàng nu xam li nu yor bu baax daal nu xam ne lii yor nii gannaaw alxuraanul karim amul lenn lu ko kawe ci mbind lépp loo xam ne ne bi mi ngi jóge ci xalima ñu di ko sëpp ci daar di ko teg ci këyit mbaa ci àlluwa lu gën a màgg alxuraan amut gannaaw alxuraanul karim nag xasida yi moo gën a màgg lépp kon nag ñun ñi nga xam ne suñu borom séddee nañu ko nu di ko def nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te moytu àdduna ndax nit ki mënta boole àdduna ak ëllëg boo soxla ëllëg nag te jëm ci ëllëg sun borom mooy boole adduna ak ëllëg jox la loolu nag lanu koy may mooy jéem a jàng xasida yi jéem kon na ko sëriñ bi bëggee xamuñu ko waaye nu di ko jéem bu baax a baax a baax a baax li la wax léegi tam mooy sëñ xaadim mi dañ koy sant bu baax a baax a baax ndax noonu mu ko waxee noonu la amee nun ñëpp la fi nekkal noppal nu ci lépp kon nag loolu nu ko ci sant bu baax di ñaan su borom mu defal na tawféex ak jàmm di ñaanal bu baax itam kilifaam jii nga xam ne mooy sëñ Ablaye Seck nga xam ne fu sëñ mu yegg sëñ Ablaye Seck mi moo ko fa teg ba mu ba teg ko ci yoon ba mu aw ba mu aw ca kon moom mi amee nañ ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant nag sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di ñaan nag bu baax sëriñ Mouhamadul Mountakha yàlla dolli ko fee yàggal ci sunu kanam bu baax a baax a baax ci barke Borom Touba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf eh, Alaaji Ndongo Thiam eh, Baye Ablaye eh, yéen kaddu ngay teg rek ci kaddu yi sëñ Ndongo Thiam ñu mën ko barkeeloo ci bis Ah, waa jërëjëf sëñ Mortala waaw ah, ñu ngi sant yàlla rek bu baax ji julli julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa bu baax rek day am mbégte mu rëy tey jii bis bi nga xam ni Cheikh Mamadou Mountakha woote na ko defoon ko daaw mu doon bisu xasida ren nag mu jiital ci alxuraan ak xasida ak sikkurullaahi loolu lépp ngir ñu wan a delluwaat suñu borom bu baax rek ndax serigne bi mom nim koy waxe rek ban koy gis ba ban ko noppé gis ci boromam rek la nekkon ah té fim fim fim ma mana jaar fim jaar fim jaar mëna jaar borom ci ñaan mom rek mo fi mëna jaar ndax gis nan lim def ci lim tag yalla ak yonent bi kenn xamul num tollu té lool ñaan ñaan ku nangu la kon nak ñi ngi ñaan diko ñaanal bu baax suñu borom musammal nuko aral nuko na fi gën a yàgg gën a wér lool ngërëmul sëñ Touba na gën a ci jëmmam ci barkeb Serigne Touba ndax lii adduna ah, ah, ah, defaru adduna ak àllaaxira njëriñu adduna ak àllaaxira lépp ngi ci jullit yëpp mën nañ cee jëriñu ku dul jullit sax te lii neex la mën nga cee jëriñu waxuma nag jullit yëpp lii mooy solution lii rek mooy pour lépp lii mooy solution kon nag ñu ñaan ci barke Serigne Touba ñu gën a nammaat pas-pas yi pastéef bi gën a góorgóorluwaat gën a malaat sëriñ bi euh, dëgmal sëriñ bi mooy dëgmal suñu borom mooy dëgmal sallallahu alayhi wa sallam euh, kon nag ñu ngi ñaan rek suñu borom mu gën fee yàgg te gën a wér rek lan koy ñaan ak mboolem njabootu Serigne Touba ak yëpp njabootu maam Cheikh Ibra Fall di sant baax jànkatu xasida yëpp yi fi teew ñëpp a ngi fi jataay bii rek yombul jànkat boo bëgg a loolu nag yombul kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax te di ko ñaanal ba wax rek ñu ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf